tey ci àllarba yi tolloo ak fanweeri fan ci weeru décembre kii di Mountaga Baro nekk chef de cabinet jëwriñ di ñu dénk wàllum tàggat yaram amaloon na ab ndaje ngir joxe lu toll ci ñaari junniy masque ak ay gel hydroalcoolique waa association bi nga xamante ni ñu ngi duppee seen bopp association des jeunes ngir soqali gox yi féetoo ci diggante njoos Ndiosmone ak Palmarin ñu teewlu kàddu kilifa gile. ñu woo ma te ma ci mënoon identifier bëriwul. damay na yàlla rek moo ko dogal donc ñu organise ñu pare na ma benn tournoi de football ma nangu ko parce que mbégte laa ko nangoo parce que xëy na loolu teraanga la te teraanga du tuuti ci man man du ma tuutil teraanga peut-être fi ma dëkk sax peut-être teraanga boobu ñu ma defal ma ko fa mbaa bu ma ko fa amee tam néew na fa donc tournoi de football lañ ma pare ne woon mais ñu ngi ko jàppoon di ciy dox mais ñu jékki-jékki mbas mi ñëwaat. le vingt bii lañ ko programme woon le 20 décembre bi mu waroon jeex le premier janvier mais ak ndogali yàlla ak mbas mi ay xale lañ mais ay xale yu am xel lañ aussi bi mbas mi commencé ma woo leen bureau ñu ñëw toog waxtaan ñu ne kat comme ministre bi suñu kilifa la te ci gouvernement Macky Sall la nekk te Macky Sall mooy njiiti réew mi te benn ministre moo jël arrêté ne manifestation bu mu amati attroupement bu mu amati dara bu mu amati fu ñuy daje ay mbooloo bu mu amati ma expliquer leen ñu nangul ma loolu mais ma ne leen nag du ngeen ma du ma leen bàyyi noonu tournoi de football bi bés bu mbas mi bu ko yàlla dàqee ba mu dem ba musal ñu ci tournoi bi bu ngeen ko jàppee dinaa nanguwaat affaire bi teggiwuma ko mbas mi moo tax mais bés bu mbas mi demee dinañ ko jëlaat bu soobee yàlla incha allah lu ci war lu ci war rek bu ñu yàlla jàppalee dinañ ko ci def mais nag. comme yéene la woon te bëgguñ mu nuyul aussi te comme jamono aussi da ngay dox ànd ak jamono mbas mi fi mu toll nii ñoom ay xale yu ndaw lañ ay volontaire lañ dañ mën a ñoom ay citoyen lañ parce que association des citoyens pour le développement de l'axe de l'axe Ndiosmone Palmarin bon bi ñu mënee citoyen rek laa ne kon yéen ay citoyen ngeen nañ volontaire boog jàppale élèves yi suñuy doom suñuy jarbaat ñu ngi ci école yi seetlu nañ rentrée bii mairie état bi accompagné wul école yi accompagné wul lycée yi ñun nañ ci waslu àq bokk mu néew mu bëri peut-être on va sauver des vies parce que les les enfants c'est eux qui transportent le ñoom ñooy transporter virus bi ñoom mun nañ baña a feebar mais buñ duggee ci kër ak virus bi mun nañ kii mun nañ wàllu mag yi donc ñun bu ñu jëlee ay masque ay gel protéger xale yi en même temps mooy protéger mag yi te boobu lañ posé tey ñu jël ay masque ay gel ñu jox leen ko ñoom ñu volontaire wara a parcourir les six communes di de de l'axe Ndiosmone de l'axe Ndiosmone Palmarin six communes la ñu war ko parcourir joxe gel yi joxe masque yi def un travail de sensibilisation parce que fa la jamono toll tey. waa association bile ñoom rafetlu nañu jëf ji ba tax kii di Adama Dieng di njiitu kuréel gi moom yëkkati na ay kàddu. ah xanaa contentement rek parce que comme ni nga ko waxee euh, envisager nañu organiser un tournoi tournoi boo xamante ne aussi waroon na regrouper euh, équipe yi nekk ci six communes yi voilà malheureusement avec la pandémie mënul loolu mënul antu parce que aussi comme ni mu ko waxee nous sommes des jeunes citoyens et des intellectuels aussi am na mesures yoo xamante ne état bu ko jëlee on est obligé à respecter donc euh, lu ñu war instant bi nii mooy que. ñu taxaw ci combat boobu noonu xeex boobu noonu ba mu yegg fu mu war a yegg léegi nag contentement bi monsieur Barma mënuñ ko mën nañu ko exprimer fii sax parce que vraiment euh, montré na image ku simple image ku action actionnaire de développement euh, looloo tax aussi bu ñu ko ko waxee automatiquement def ñu approuver loolu te aussi taxawaay bi rafet na trop jeunes yi kontaan nañ parce que dañ doon xaar sax lu ko raw lañ fi fekk donc loolu noonu mënuñ ko exprimer en tout cas euh, ñaan rek yàlla gën a dëgëral yoon ànd bi ba si kanam ñu mënoo ñu mën ko won en tout cas en tan que des jeunes lan moo lan moo ñu war ak suñu mission euh, suñu at yi bu ñu mën a def ci ñoom parce que nous des jeunes euh, bon terrain ba mun nañ ci dara peut-être jéem mun nañ jéem. coronavirus tax nañu dakkal lépp luy xeetu yëngu-yëngu fii ci Sénégal rawatina ci wàllu tàggat yaram ba tax na gannaaw lëkkaloo bi dox ci diggante association bi ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu tàggat yaram. fas yéene nañu ànd ngir xeex mbas mile waaye di wéy di ànd ngir soqali miim réew rawatina diwaanu Fatick.